muy bu ñu ne bés bi sëñ Abdou Lahad Karam la ko tuddee sëtam toog sëtu sëñ Abdou toog ko xam diggante sëñ Abdou ak sëñ Abdou moo tax waxtaan wi mënuloon a sore te seere di sëtub sëñ Abdou Lahad sëñ jilim sëñ mu ngi nii toog sëtub sëñ mu ngi nii toog sëñ jiw waaw sëñ mu sëñ Seexuna sëñ Seexuna mu sëñ Abdou Lahad kon ku ne ci diggante boobu bu ñu lay waxloo xanaa nuy jéggalu rek su ko defee sëñ Moutaar cantam ak ngërëmam mu ngi ko boole ak imaam ñetti limaan yi ñetti chef du yi Moussa ñaare Moussa John Omar jon mu Touba Ndioy kon dëkk yëpp ñetti dëkk yëpp benn dëkk la tey ñu woote ñëpp wuy si te sëñ Motaar am cant goo xam ngi ni tuut sa tànk siñ sëñ Saliou dañu ko woote ñu tuddee bés bi sëñ la Karam te tout tànk yooyu sëñ Saliou yooyu sëñ Saliou mu noon guddim bàyyi nu juróom-ñaar fukki eh, eh, juróom-ñaar juróom-benn fukki saako dugub la ñu fi indi woon saako bu ne ëpp na juróom-ñaar fukki kilo def nañu koy cere ba mu ngi toog kër sëñ Tuubaa gi de xaal ndaw ndaw la ko war a jël si. kon fekk ngeen fi liggéey sëñ Saliou bu ñu liggéey ba noppi bu war a demaat ci daara sëñ Saliou te ñoo seen waajur yu góor yi ak seen waajur yu góor jigéen ñi ñoo àndal liggéey liggéey boobu. kon nangu leen kuy seeral ci tuut tànk yi sëñ Saalu yooyu foofu ñu teg seen tànk sëñ ma daan ne nuyoo bi ak cant bi itam ba mu jógee ci chef du village bi nee na ñu ngi ko jaalalee ci monsieur le maire mi toog sëriñ Cheikh Amadou Mbacké te nga xam ni sëñ bi daraam asaaru xoolal waajuram bi la xaar gépp danoo booleen sunu bopp nu de fédération dayruñ sëñ Cheikh Mbacké bu ñu màggalee boobu Touba Touba xatagul dañuy ànd ak moom jëkkee kër sëñ Abdou Karam ndax muy sëriñam comme jiital nañu ko moom mii tam daa wàññi ko jiital nit ñi kenn ku ne ndax daayira bi dafa am paaleen am njenn ñëpp bokk ci suñu siyaaree Sëriñ Abdou Karam ba noppi mu ànd ak ñun kenn ku ne mu siyaare su sëriñ soog a dellu daram boobu loolu mënees na ko ci Touba kon jiital googu bu ñu demee tey ba ñu jiital sa doom loolu Sëriñ Touba liggéeyu Sëriñ Touba ngi noonu Sëriñ Touba noonu lay fay Ah, sëñ moo Modou Mbaye sàmb baayam dafa dem à 14 juillet ba ñëw ñu jox ko ma médaille capitaine mu ñëw gas ko suul ne sëñ Touba maa moo ma yëboonoon moo may fay kii ñii duñu ma fay nee na garaat boobu mu ngi ci sa sama mbagg kon da ngay ne ci sëñ Touba mu ne ci say doom ak say sit sëñ bi bi ngay wax ne sa ñëw gii dafa xeemu te mu te mu te mu rëy ci noonu loolu xaw noo jomb ndax sëñ Modou Ndaw Baye Modou Ndaw rek bu ko sëñ bi yëbaloon day doy ci noonu bu yónnee woon Njóob ma bi nu sëñ Tuubaa nar a dimbale daa fab sëñ Afia dimbale ko indi ko ci soowu jant dimbale euh, sëñ Amadou sëñ Amadou Mokhtar Diop sëñ Mor Diop ñu doon fi lamp boo xam ne dañu doon leeral gox bi yëpp kon bu ñu yónnee woon kenn ci Njóob day doy ci noonu sëñ Dawda mii nu faboon jiital ko itam mu ànd ak sëñ Dawda kii nekkal xele yi kii nekkal mag ñi moo ak sëñ Dawda turandoom noonu lañ doon àndee ba waa waajuru sëñ Motaar mii kon lañu ñu doon liggéey moo mooy rodaat ba ñëwaat ci seen doom yi ak seen sët yi tey kon dayre fi jaarun yëpp fabaat nañu lépp jox tu tànk yi ngeen ñaanal ci xale yi ndax soppee xaadim jaar na fi ñu boot xale yi di fanaanoo sikkar dayre kuréel Baay Faal yooyu yëpp jaar na fi waaye fii gone yi tegu nga xam ni dañoo bokk ba noppi boolee seen rakk yi ak seen doom yi muy lëf mbir maa ngi jëm ci kanam ndax sëñ bés mi bu àndoon ak maasam gi rek di liggéey liggéey boobu buñ demee ba jamono jàpp loolu mën nañu waaye dañoo fab doom yi ak rakk yi ba ci ñuy boot sama sëriñ nag ñëw na jenn yaram sa maam ja Cheikh Issa jenn taaliba bi fi jëf jëkk jébbalu ci sa maam la jébbaloon ñu di ko wax Baye Ablaye Tine kon seere nga ci bis bi benn taaliba moo fi nekkoon bu jébbalu bu ñu wëral njébbalam ndax am na ku fi jëkkoon a jébbalu waaye bu réew mi dafa taroon ba ko señ bi gërëmee mënta ak si réew mi ndax ndax ndax ndax ndax am na réew mi demee maamam jii la nit jébbalu ci moom yëf yi law fi nu toll saw su préfet noo ngi lay dénkaat njaboot gi de xam ni yooyu yëngu ci réew yi de li tax mënu fee yëngu muy lii muy ngëm-ngëm gi nu am topp gi ñuy topp kon war na waroon na sa borom réew mi fu ñu wootee fu ay ndaw wootee rek jëm ci lislaam ñu bendal leen ndax ñii de du ñu dem feneen euh, préfet gone yu tool nii nga xam ne bu bis bi jàllee ñu ngi waajal kore euh, ndax ñoo ne fii ñoo ne Ndakaaru ndax bureau bi nga ne waaye saa bu horaire bi ñëwee gis nga ne mu indale ñoo ne ci seen kër bàyyi ñoo ne ndakaaru bu ñu demee màggal ñoo fa ne bu ñu demee gàmm ñoo fa ne kon ñu ngi sàkk ku nu doolee dimbal ci ndaw ñi ci seen bés bii monsieur le maire ngi ci waaye ñu ngi ñaan itam ci barke ñu baax ñii fi toog ñu dem ba ay député ki ay président bokk ci kuréel bi di fi di fi comme ni monsieur le maire di yëngu maire nag du ma sore ci moom ndax sama xarit la démb la woon bu doy ndax dama bi mu doon a gulee maire la ma jëloon yóbbu pale mu bëgg maa teg ci kanam ma jàkkaarloo Macky Sall la ma rocc ko ndax li ma doon dem bañ sama kilifa moo ma yónni suñu motaar waaye dama doon bañ nit ñi xool ma ne suñu mbàkk mu ngi politique léegi mu wax waa ma ko dem ci kon démb woon boobu tey ñëw ko kon ñu ngi lay ñaanal ci barke ñaata la ñuy jàng suñu bés ñaata kaamilu alxuraan déggu naa ñuy wax ñu ñeenti téeméero al euh, kaamil wàcce nañu ko ci bis xamatuma la teg ak la fi wàcc ci xaside kon bés bi ku ñaan jàmm ci réew mi président la ko jëkk ñaanal ndax moo jiitu tey kon ku ñaan jàmm tey yéen la ko dolli dëkk ñaanal ñaanal ko kilifa diini yi nga xamee ni itam ñoom ba si ba jàmm am ba jàmm ñàkkee bañ jëlee Sëñ Tuubaa di ko yóbbu mu bindoon ne xat faaka kab la xat baa sa fal da fadduru wala wanox fi jaay ñii ko jël ku ñu mës a jël sànq nañu la la ñu rey ci ay sëriñ la ñu rey ci ay xewal yu kenn xamu ko ñu jël ko di ko yóbbu mu ne dajji naa jéngi ñu dinaa xewali kon bu fekkee ndaw ñu toog nañu di ñaan jàmm. ji mhm. mhm. waaw. far la far duruwaa la wan fa jaay waaw. kon Mbacke Balla sa waajuroo daa ñëw fii réew mi jëm ci ay élection ma ne ko Mbacke Balla mbir ñëw na tombe yaa waral ay gaaf ñëw nga fi tey ñu ngi jëm ci ay élection sa taalibe baa ngi nii sa doom ndax say doo daa dem ba sëñ bi doomoo ko ci biir kër ga loo ci xam. waa mooy moom mi kon yow itam ñëw nga waaw ndaw ñaa ngi nii réew maa ngi nii noo jublu nawet nga doole noo ñaanal mbàkke sa am lu mënu mosoo ñaanal def na ko sa ba waajur lu mënu mosoo ñaanal am na ko mm, kon nag euh, sëñ Motaar waa ak sa ndok sëñ bi nee na nu ko bëggee rek nag ki na na amee nu kawe njoot noonu na ko yàlla def ci barkeb sëñ bi nga ñaanal suñu action bi nga action bi nga xam ne mbir mi dafa demoon benn ñaari benn boor ñu ngi dañ daan nekkal nguur gi rek waaye tey dem nañu ba yaakaar naa iliman sa dina julli jumaa ba noppi dellu ci biru ba moom réew ndax moom mi nooy bokk sàpp saa su ne kon dafa boole saayir si ak baatin waaw waaw waaw eh, eh, fii la jógee léegi waaw eh, waa sëñ Adama léegi la fi jógee di sëtu Cheikh Ibrahima sëriñ maam maam maam Pape Mbaye itam moo nu jiite euh, timis waaw Cheikh Isa ngi nuy toog ah waaw allah ah sëñ bi de mënatuma wax nag ndax jëmm jooju waajuram daa dëkkoon fii ci noonu jaxasoo ak mag ñi boobu dara xewagul ñu dem ba sunu borom fayee na ko mu dellu si ci réew mi samp fi daara samp fi kër di jàngal doom yi alxuraan. kon gis nga àndam gaa mag ñàkk sa waa maamam ja gis nga lenu si suñ Tuubaa Faye muy indil ñu ko ci suñu biir kon bay jërëjëf a ah sëñ Mouta nag mu ngi dolli di sant réew mii yëpp ndax ànd gi ñu daa ànd di di dem siyaare si Abdoulaat ànd ak waa réew mi ba sëñ bulaat ba muy tàggaloo ak ñoom keroog bis ba woon na leen ñetti yoon ndax boobu leen ni day tàggatoo ñoom. tey nu dem ba tànt bis bi nga xam ne jumaa ji ñaar fukki at ñaan gu jógee ci sëñ Abdoulaat ñaan nañu ko ci jàkka ji ba tey mu doon bu ñu wootee bis bi sëñ seexu naa ah, sëñ jili bu sëñ seexu naa toog kon mbàkki bàll jërëjëf samaam maam jadi la mën a waxoon dina baax gis nañu ko ndax boobu yëfi tàngana métti na mu ne leen bu ngeen demee na ngeen sant yàlla te xam ne lépp dina baax kon jërëjëf mbàkki ndax eh, eh, eh, sëriñ bi mm, sëñ Abdou Karam tànneefam dafa feeñ ci tund wi danoo new teew ci kanam sëñ Moustapha ma ne ko sëñ Motaat jot na de moo ma yónni représentant sëñ Abdoulaye sëñ Touba ba ca mu ne ma yëg naa ko boo gisee ma bàyyi sama taaliba ñuy ànd ak yéen di liggéey muy dama xam ne loolu dëggal da ngeen a dëggal waaye bu sëñ Motaat dëggalu loon dinaa leen woo ne leen kaay leen ci dëgg gi man sama taaliba fu mu amee dama koy teg ci dëgg waaye xam ne liggéey boobu dëgg la moo tax mu bàyyi mu ne sëñ Modou ñoom keroog mu ne di liggéey daal liggéey boobu dëggul te noonu la ko waxam ci sëñ Cheikh mu sëñ Saliou nee na ànd gi ma ànd ak moom damaa gis fu mu teg tànkam kon sa waajur wa sant nañu ko gërëm nañu ko euh, euh, sëriñ naar jenn moom itam yàlla dimbali nanu itam ñu tuddee bu ñu demee ba ca Touba dañu ne sëñ naar jenn moom pàmbal te loolu da ko jëfee ndax ba mu ba mu bareegul tànk pàmbal bu ñu mos ñëw màggal ci noonu lay toog ba tey yàlla jox ko daara fii ci ngañ juuf nga xam ne lu xew mu ngi toog te waajuram ba fanweeru at moom sëriñ Sidi Jenn di ànd ak ñun di jëf ak ñun di defandoo ak ñun jëriñ ji ci Pambal jëriñam ji ci Pambal maa ngi koy siyaar Sidna Aliou Dione ndax moo ko nekkal fii ci Pambal. kon euh, cantuk waa chef du mi daal sëñ bi daal ba nga toogee sëñ siyaaw na sëñ siyaaw naa toog siyaaw naa toog lott naa ci wax ji kon euh, asalaamaaleykum Pape Malick euh, tëli bi tëli bi sëñ Mataat nee na Mbacke Ball tëli bi nee na ñaan ci ñaan ci bala ngaa dikkaat fii lépp ñuul. waaw <laughs> waaw na yoon bi ñuul hmm. kon ñu ngi siyaar mag magu dëkk bi yépp hmm. sëñ bi nga dolli noo ñaanal li dem ci yoon wi ak bennoo gi am ci réew mi nga xam ni réew mi fii mu ne dëkk bi ñoom ñëpp ànd liggéey bi di ñi nga xamee ne eh, eh, dañoo féete Tiwaawan ci waa kër Baam Alaaji Malik ah te ma sëñ bii li mu waxoon ren eh, sëñ Mountakha moom sëriñ Bassirou la mu waxoon keroog bi mu toogee ak sëñ Mbaye Mansour dana mbégte mi mu am de mosuma ko am ma ne ko Mbàkke de la sa maam ya defoon waxaat nga ko ma maam Alaaji Maalik daa jotaay ak sëñ Tuubaa ca Tiwaawan jotaay ak moom ca Njaasaan tool eh, ca Njaasaan kon jotaay jooju moo dellusiwaat tey moo tax mu ne mbégte mi ma am de mosuma ko am kon noonu la Tijaan yi ànd ak mu ci liggéey bii ñii nga xam ne dañoo féete ci diini yonent yàlla Isa ibnu Maryam may dem noonu la ñu àndee ci bis bi ñoom ñëpp jàpp di liggéey Sëñ Tuubaa te Sëñ Tuubaa kat moo woote loolu ndax nee na ku ma bëgg ku ma liggéeyal kooku kon xàjjatliwul moo tax ñëpp ànd nañ ci bis bi Mbàkke baa la digg kon booy ñaanal ñaanalal eh, Pambal gépp ñaanalal réew mi ñëpp kon Pape Malick noo ngi jégalu asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala ci guddal gi. Euh, mbokk yi xam naa dañuy ñaan dafa am ñaari mbir yu ma dab rek. te wala am lu mu léebu ñaar mooy bi ñuy door a agsi dañu doon xoole jëmm ju tedd waxoon ñu ne dañoo bëggoon ñu bàyyi ba ñépp yëkkati kàddu ba daaneel nu mujj wax tëj jotaay bi mu mel ni dama leen a yelwaanoon balay timis ñu mën a yeweeku waaye ginnaaw nag fonk sëñ bi ak bàyyi xel kàddoom suñu boroom dimbalee nanu nun ñi àndoon du ñu ñu toog ba jataay bi tëju ndax jataay bi jàpp naa ne ëllëg lay tëju incha allah kon jataay bu njëkk bi mooy bëgg a tëju te mu mel ni kilifa gi itam ci wàllu administration ñoom daawuñu mujje kàddu ala kenn ci njaboot yi moo xam ko ñuy tudde kilifa ga la mën naa feggoog ñoom ñàmbaas seeni wax bu ñoppee loolu defe naa moo doon am ci bis yëpp loolu mooy benn mbir bi ñaareel bi am ñaar ñu tedd ñu ne woon nañu leen jox kàddu njëkk ay kàddu yi monsieur ak sous di wax ñoom ñaar ñëpp ñu jëlaat seen jëmm yu tedd yi dugal ko ci biir sama njëmm sama njëmm su tuuti si muy sëriñ Abdul Xaadir ak sëriñ Naar kenn ku ne ci ñoom nee na jël na kàddoom dugalaat ko ci suñu biir kàddu kon lii moo tax ak façon bi sous-préfet waxee loolu moom defe naa ku ko dégg. li monsieur le maire Serigne Cheikh Mbacke waxoon ne mën naa jóge ci jàkka ji jiite jàkka ji jóge fa dem ca bureau ya lijjanti ko na mu ko war a lijjante defe naa bi mu toogee fii dafa mel ni ku ñuy tëddee oustaz moo doon wax ak ñun def na fi bayaan boo xam ne macha allah delloo nañu ci yàlla kon loolu rek laa ci bëggoon a ñambaas di wax ne sëñ naar mii. njëkk may ñëw Cheikh Abdul Ahad ci ñaari baat sëñ naar maamam lam doon def diggam ak sëñ Tuubaa moo ko xam waaye ba mu ñibbisee moom la ko ne Isaa ci loo nekkoon ba tax fu ma toll ci géej gi mbindee fi suñ borom yépp garab yeeg lu ma dajal mu ne bul fàtte Isaa ci loo nekkoon mu dootu ko lam lam ko tont duma ci sori foofu doy naa yem kon xam nañ ne kenn la ci njaboot Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul waaye kenn la ko sëñ bi ràññee woon sëñ Abdul Xaadir mi li tax ma dellusi ci sëriñ Abdul Ahad sëñ Moustapha Al Akram tey jii lu leen neex ci moom ginnaaw dogalu borom bi tabaaraka wa taala ci sëriñ Abdul Ahad la jaar lu leen neex ci moom rekk lu leen neex ci moom moom sëñ mu Moustapha Akram lu leen neex ci moom ginnaaw dogalu borom bi tabaraka wa taala ci sëriñ Abdul Ahad la ko jaarale mu dénkoon ko magam ju tedd jii fi nekk tey nga xam ne moo fi nekkal Cheikh Bamba di Cheikh Mouhamadul Muntaxa moom sëriñ Basiru ñoom ñaar ñi ñoo ko séq ak dogalu borom bi tabaraka wa bi mu dogaloon ci moom ba mu agsi tey fii mu agsi sëriñ Abdul Ahad nag jërut soobu jërut sori jërut wax dara maa ngi koy wax gaa yu baax yu tedd yii ma nekkaloon ci biir ne leen jàmbaar la joo xam ne boo ñëwee ci jumaa ji wëndeelu loo gis moom la moo tax ku ñu wax Moustapha Penn daf ko waxoon ne ko bànnayta daara li li kitaabillaahi walil ahadisi li waj illaahi di lim ba mu yàgg mu ne ko bajjaltaha xaddastaha xat suntaha kamalta raayaha fa lakka fadlaha kon kooku mooy sëriñ Abdul Ahad mooy suñu jàmbaar ji nga xam ne yàlla may na ko taw feex mu dikk ci jamono joo xam ne jëmm ja ñor na te daraam yàquwut cinquante deux cent wala cinquante la ñëw nekk xalifa Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul yaatal yoon wi yàq li ko wax lii doomam ji tedd ji wax mooy bëggatuma fee dégg murit wala tijaan wala xaadir wala laayeen muy li sous-préfet di ñaan bu jàmm ñett ñu bokk ndey te bokkuñu bàyyi lañ ci benn biir lañ bàyyi ko kii dafa ñuul kii dafa xees kii dafa xeeral sëñ Blaat ko waxoon yéen ñëpp ñu koy dégg ku fi doon mag rek yaa ngi doon dégg loolu kon jàmm jooju mën naa cee daanelee. ñu baax ñépp ci jàmm la ñuy dox nuyóob lislaam sax moo yàlla na la yàlla defal jàmm nga ne na la yàlla defal jàmm loola nag soo ko waxee ma wax ko ñu fas yéene bokk di ko dox dara du xew lu may jàmm kon loolu mooy wax ji benn bi nag musula meer xam naa dama koy dama koy denc duma ci sori ndax xam naa sëñ bi ngay ñaan ci capitaine bi bato bi jombul mi ngi may geesu di xaw a ree ndax man ci conseil président de la république conseiller ci conseil bi ñuy wax conseil économique social et environnemental fa la ma président de la république yóbbu kon ci ay conseillers laa bokk waaye tey dama ñëw ñëwaayub taalibeeb Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ndax loolu mooy ndombak baat gi te ndombak baat damay wax ne ni baat kawee tànk ni la ndombak baat kawee ndombak tànk ndomb ak tànk ki la ko takkal bu ko meree tekki ko bu yolamee wadd ndomb ak baat nag fa mu nekk rek lay nekk soo fa jógee jox say njaboot bu ñu fa jógee ñu jox seeni njaboot waaye kon maa ngi laaf ci boole ko doléance yi ma dégg di ci fas yéene jàppalante ak monsieur le maire ak programme PIDG bi ñuulaay bi ngeen di ñaan yépp itam nañ ko gungee ñaan ñaan gi nañ ko gungee dox ko dox gi mooy wax ci ñi ci war a waxal ba ñu ñuulal fi liñ fi war a ñuulal lii laa ne woon naa ko ci ñambaasaat ngir jëmmi sëriñ Abdul Ahad ñoo ngi jégglu bu baax nag waaye di leen fàttali ne jotaay bu njëkk bi waaw jotaay bu njëkk bi lañu tëjandi di leen wax ne dangeen ngeen a boroom xam-xam bu mag bu yiw bu yaru bu sëriñ saaliw tarbiya ba gërëm ko mu bokk ci ay njabootam ngeen bàyyiloo ko yitte yu bari mu waroon a def benn conférence bu rëy ci njaareem te ba fi mu ne nii ñu ko ciy xaar muy sëñ Maxtaar Fay mii kon nag lu ngeen ko terale lu may ñun bu ngeen nu saraxee ba nu wàcc ngeen des fi déglu ko xam ne lim leen di indil incha allah ku ci yàlla may gisub xol man nga cee dundu ren ba déwén genn kilifa gu baax waxoon na ko ngeen baal ma nag ci waxin wi moo ko wax suufeel boppam bi mottule le maire nee na mboolem ñi séq daayira bi nee ñu sëñ Moustapha nee na tund pambal gépp nee ñu ñi ngi sant di gërëm ñi doon organiser rawatina gendarme yi nga xam ne ñoo dox sunu diggante ak naaj wi ñoom ñoo nekk ci naaj wi ñun ñu nekk ci ker gi guddeeg bëccëg ñi ngi yàq seeni nelaw di ñu aar di ñu sàmm mboolem ñoom ñi ñëpp nee ñu ñu ngi leen di sant waaye ñi ngi beral ñooñu ak cant ak ngërëm ñeneen ñi nga jaar ñëpp te monsieur le tudd leen ak kuñ ci tuddul na ngeen xam ne lii seeni yéene moo ñu tudd leen ci tuddin wu mat sëkk woo xam ne dara manqué wu ci kon ngeen bàyyi xel sëñ maxtar buy yëkkati kàddu Cheikh Ahmad Bamba xam naa muy man di sëñ jili di sëñ yenn ñaari xaadim yi na ci kenn ñaanal mbooloo mi te ngeen dëxe ñaale ci biir li ñu soxla mooy nawet bi na ñëw ci waxtu wi ñu ko soxlaa na ànd ak waamewu barke lu ñu ji na sax bu saxee itam na bari su baree na barkeel nañ ko muurloo na fi jàmm sax ci diggante jullit yi ak katolik yi ak ci diggante ñi nga xam ne doxuñu ci benn diine nañu xam ne daal ay nit nit nit ñoo fi daje nit day jëf jëfi nit seeneen yeneen aajo yi ñu bëggaat yépp muy ñuulaayu tëli bi seen aajo bopp ci seen biir xol sëriñ tubaab man na lu ko wàcce nañ fi nee ñu ñaar téeméeri kaamil ak fanweer ak ñaar ci biir néeg bi ma wax ne man tegal naa leen ci benn ngir jëmmi jëmbi sëñ Abdou Karam ndax li ma doon wàcce fii laa ko mottalee tey kon wàcce nañ fi tey ñaar téeméeri kaamil ak fanweer ak ñett ngir jëmmi sëriñ Abdou Karam ak sëriñ Saalihu Mbakke ma nekkoon xaritam ba nekkoon sëriñam ci mujjam nekkoon doomi baayam waaye ak sëriñ Moustapha mi nga xam ne nun way jur la ci nun di suñu kilifa loolu lépp nag yàlla na ko yàlla nangu sëmbërtal ko tuur ko ci askanu Sénégal dafa leen jàmm waaye su boobaa itam pàmbal gi yëf yu xewee yàlla nañu ci ëpple kon kenn ci sëriñ Bamba wala Cheikh Ahmadul Xadim mu jëleen kàddu ñaan gi ñëw ngi leen di déglu salaamaaleykum wa rahmatullahi wa amin amin amin waaye o maxta tamit dafay de kanfa dafay ba ceeru ba kon